nee na sëriñ Fallu li nga ñaan ci màggalu sëriñ Tuubaa gi fekkoon nga ci sëriñ bi nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na te amu ci benn xalaat mës ci amit benn xalaat lu dul nam ko fekke woon mu wéyale ko noonee rek ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi wattu ak sàmm kon nag bis bi ni ko sëriñ bi bëgg woon rek njabotum gep itam wéyal ko bam mu fi ben benn xalaat mënu cee am de lu wessu noné kon loolu na ci seenu xel dal